waaw tey ñun dañ fi daje parce que ñi ñu xam ñëpp xam nañ ni at yu weesu yëpp ñun dañoo gëm ni ñetti weeru vacances euh, pour ñun chance la pour système bi pour que kilifa yi xam ne ñoom waruñoo dem vacances muy syndicalistes yu mag yi di ONG yi di ministres di acteurs yu mag war nañu bàyyi xalé yi dem noppalu ndax vacances am na lu muy tekki waaye ñun dañu wara tok pour xalaat euh, defar ba nga xam ni at biñu jëm lepp lu wara nek nekk gàllankoor dañ ko mëna xam. ak euh, nuñ ko wara mëna gungé ba gàllankoor du am aussi dañ ko wara mëna jëmé loolu moy no vacances pour l'école mu nek ngëm-ngëm suñu ñun biiran nag ñu né suñu no vacances pour l'école lu ci ëpp ñun acteur éducation ñu ron dajé di wax ñu né biir nak dañuy jëma a ba jël ay experts yo xamni ne ñoo ngi jogé ci yenen domaine mo xam droit mo xam euh, économie mo xam environnement ñu jël seen jël seen gëtt tek ko ci kaw euh, njàng beeg njàngale parce que njàng kat du école kese du créer tableau ak BIC mais li ci ëpp solo mooy nan lay njàngal njàngale bi mën a indi tontu ci jafe-jafe askan wi moo waral ngeen am fi lu ëpp 10 domaines yu ñu dajee 12 experts joxe seen xalaat ñun ñu toog toogaay yu déglu leen pour mën a fexe ba lépp luñ fi indi lu ñu fi nas comme solution nekk loo xam ne évidemment dafay dafay nekk ay solution yoo xam ne dafay dafay yàgg parce que li bon moom mooy ñu yàq yaakaar na trouver nañ solution fekk dañoo jël seulement benn pàcc donc gis-gis bu yaatu loolu lay indi comme njariñ kon nag waxtaan bi nag li mu jur bëri la benn bi moom mooy déjà ñu fàttali ni mbirum njàng ak njàngale nañu arrêté di yaakaar ni affaire ministère de l'éducation ak syndicat yi la déedéet il faut que askan bi jàpp ni njàng ak njàngale ku nekk da ko war a def yitteem njàng ak njàngale daaw suñu sens large mooy école yi ñu am muy daara yi muy petite enfance muy euh, fi ñuy jàngi couture fépp foo xam ne xale dafay utee xam-xam utee fa compétence dafa war nekk yittewu askan bi gis nañ ni adduna bi yëpp dafa am ay jafe-jafe muy crise yu yu de environnement bi gis ngeen ni mu doon tawee tawatu ko gis ngeen ndox yi nga xam ne na l'école yi gis ngeen bi ni muy yu donc na ay forme crise ñun nit indil façon crise mais ku am xam-xam xam ni par force crise daf kon li am solo mooy nga jiital loolu moom lay am un système résilient mooy système bo xamné du lu ñu war daan ko. ci bir crise nag mo am ci benn crise bo xamné actuellement mo ngi suñu tank moy crise politique yi ndax ñëpp malheureusement gis nañ ni chaque fois bu ñuy jëm ci ay élections école bu dafay xaw am ay yëngu-yëngu kon nak il faut ñu taxaw pour né élections yi ñu jëm nga xamné ne wër yu ñëk ci école bi dafay nekk ci période outil candidat ak parrainage nan lañu mëna def ba ar suñu l'école ak suñu dom ci jafé jafé yoy ñetti wër yu top muy wëru élections yi nan lañu mëna mën ba mak ñi def seen i élections xalé yi war dem voté dem voter en toute responsabilité sans mu am gàllankoor ci suñu yaakaar moom mooy xa tout tànk yi nan lañ mën def ba ñetti wër yu mujj yi nga xamné ñom buñu bu élection lu ci ëpp yi dañu indi ay coow ah, ñom lolu <laughs> moy réalité bi ba xalé yi aussi mëna a rëcc ci coow donc lolu bokku na suñu yitte mo waral ñu ne konte nak war nañu mëna fexé ba élection yi jëm nek plutôt au lieu ñu considérer ko comme euh, crise bu ñëw daanu ci école bi waye mu nek opportunité pour gëna défar suñu école.